ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñooy ànd ak saa su ne rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle waxtaan nara fas yéene waxtaane euh, jafe-jafe yi nga xamante ni fi ñu toll nii ñu yëngatu ci wàllum dem bi ak dikk bi ñu ngi koy faral di jànkonteel jafe-jafe yi sax bari woon na wante la gën a daal di yokk du lenn lu dul feebar bile euh, di coronavirus bi nekk ci réew mi nga xamante ne nag état bi dafa jël ay mesures ba dakkal dem beeg dikk bi ci anam yu baree bari euh, tey ji nag ñu daal di fas yéene waxtaane euh, mbir mi ak jafe-jafe yooyu le ak kile di Pierre Mbakhane Gomis nekk premier secretaire général bu syndicat de transports routiers bokk ci CNTS bi nga xamante ni moo di giro moo ko daal jiite ñu fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante fiñ toll nii ñoom ñu ngi koy euh, jànkonteel Pierre Mbakhane Gomis ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Kumba ñu ngi lay nuyu di nuyu waa rajo bi Rewmi FM. Hmm. di nuyu présentement bépp doomi aadama boo xam ne jigéen nga wala góor wala mag wala nga ndaw te hmm. surtout ñu jëm ci jafe-jafe jamono jafe-jafe doomi aadama. waaye jafe-jafe secteur transport public te transport. Mhm. muy marché yi muy nit waaye tey nag bu moo ci gën a war ndax gaalu ceer yëpp lañu ñu tëj. ni nga ko ci door sa waxtaan. Mhm. jafe-jafe yu yokk yi fi nekkoon ne jafe-jafe transport moom. Hmm. yàgg naa taal yàgg na fay nekk. Hmm. maanaam jafe-jafe yi bari woon na wante fi ñu toll nii la ca daal di yokk wala gën ko paralyser moom mooy li nga xamante ni mooy coronavirus bi mais Pierre dañuy daal di njëkkee ci syndicat bi nga xamante ne ah, moom nga daal di nekk tey jii bu ma la doon laaj dama lay laaj lan mooy particularité ah, ci syndicat wu ah, des transports routiers par rapport ak yeneen syndicats yi nga xamante ni mu ngi fi que. Euh, syndicat yi yëngatu ci wàllum dem beeg dikk bi bari na lan mooy yéen seen particularité xam nga particularité euh, syndicat amul syndicat moom benn jëmm la euh, benn institution la benn vocation la am benn prérogative la am benn doctrine la benn méthode la am benn idéologie c'est-à-dire buñ dee ba ci xel ñaar melokaan wala defa jëfin mu ngi mel doomi aadama xam nga doomi aadama duñ séntu moom mooy njub rek lañ séntu doomi aadama am fu la am fu jam tënk ko ci yoon waaye bu melee noonu rek moo ko tànnal boo xam waaye dañu ko sant loolu la syndicat aussi kuréel la goo xam ko tax a jóg mooy xeex ak ak yelleefu doomi aadama ak ak yenn yëfu doomu aadama. c'est-à-dire hmm. fexe ba liggéeykat du natt waaye liggéeykat it kenn du ko nattu ci jamono bu ne ci saa su ne ak fu mu ne bu ko defee nag bu ko defee nag syndicat professionnel ak central bokkul syndicat professionnel moo la kon xëy na ngi mel ni kër ak néeg hmm. wala dëkk central mooy kër gi wala mooy dëkk bi syndicat nag mooy néeg yi wala mooy quartier si biir dëkk bi bu ko defee central bi nag mu feetu ko ñëwee rek feetu àdduna yëpp moom la àdduna yëpp bokkandoo muy la fête des travailleurs. Hmm. loolu rek wane na kon syndicat bokkul ak lan bokkul ak kenn wala tànn. mais tey jii nag ak doon ak wareef. Hmm. waaye ci njub ak ci dëkk ak ci ngor. Hmm. loolu mooy mettre en fonction nag. te ñun lépp loo xamante ne bii. boobu yar la yaaroo ci jaww ji loolu aérien la yaaroo ci géej gi loolu maritime la syndicat bi moo la war a saytu pour fépp koo xam ne réeroo am na fa ci diggante nit ak ñu ko seq responsable syndical bi ñu fal wala bi ñu délégué moo war a jóg saytu loola lu mu tey posé question boo xam ne mhm. neexoon na journaliste yëpp yëpp yëpp di ma ko laaj ma ko laajee nii ma ko laajee waaw pour que population bi tout entière maanaam information di mise à niveau. Mm-hmm. par rapport à vocation syndicat ak ay prérogatives parce que beaucoup de gens l'ignorent. Mm-hmm. même am na syndicat yoo xam mais xam ñu dëgg-dëgg syndicat lan la waaw bu di kon xamul ñoom lan lañu. Mm-hmm. moo tax nga am liggéey gis ak liggéey dégg ko tax nga posé ma question bi ñu posé waaye man nag heureusement man. mais est-ce que euh, Pierre Mbakhane Gomis yow bokkoo ci syndicalistes yi nga xamante ni dañuy yëngu-yëngal parfois autorités yi oo leen ci suuf am na ñu def ak ñoom rek ñu seral mbir yi sans pour autant parce que parfois da ngay gis euh, ngeen di grève sans pour autant sax liggéeykat yi gis ci seen bopp mais grève bi jékki-jékki dakk ñu naan syndicaliste bi kiy jiite syndicat bi dañ ko jënd insi de suite est-ce que yow bokk nga ci ñooñu waaw wala déet. Euh, tey ci Sénégal. Mhm. maa fi doon doomi aadama bu tudd Pierre Gomis. ñu dàkkanteel ko Mbassane Gomis. Mhm. muy yëngu ci syndicat. Mhm. bu fàttali yëngu ak syndicat transport ci surtout bokk ci CNTS. bu mu digiloo. je suis le seul. maa ngi défilé. tout le monde en commençant par yéen presse. ndax mille neuf cent avant deux mille si jamono Abdou Diouf maa ngi liggéey ak organe de presse yi par rapport ak sama sama fonction sociale de syndicaliste maa ngi liggéey ak état bu am bu Abdou Diouf socialiste bu Ablaye Wade demo libéral ci bu Macky Sall bi je défie quiconque nag c'est-à-dire loolu nga la ñu am solo man daal dëgg ku li ma neex soo dëgg-dëgg tey moom xaw ma ko lay jox ñeexal <laughs> waaye li ñu war a def loo xam ne rajo yëpp ak télé yëpp ñu ko war a synchroniser teg ko. dëgg la parce que dañ ni boo gisee olof naan njiit hmm. ñeent ko wal ñeent hmm. bu ko amee rek ñëpp na hmm. kooku syndicat ba njiitu yooyu mag politicien journal rek na ba ci yem mooy na am ngor ba kenn du ko jënd mooy loolu ngay wax na am xam-xam ba kenn du ko nax mooy loolu ngay wax naan man jot bu ko soxla mën koo jot comme nii ma mën a jot ma. Mhm. mosoo maa woo jotuma sama robo mosuma woo jotuma. dëgg la disponible nga waaw macha allah. kon nag loolu moom jëf ci tontu mhm. nag loolu nag nga boo ko bëggee boo ci boo ci bëggee mucc ci loolu. Mhm. ginnaaw ci politique. syndicaliste bu wér bu wér bu ñu fol ci congrès mu nekk. politicien la doxul dëkk ak ku mu doon nag rajo laa waxee nag. muy mhm. dégg. ànd ju ñu ñu dëggal la suñu central bii gën a jiite. Mhm. dafa nga amul pa dafa doon daan di parti responsable ak parti socialiste. ñu bëri xam ñu loolu mooy participation responsable il faut que nag ay sax politique bu peese ko moom moo ko jënd moo koy guidé c' est pas vrai c' est pas ça. Mhm. c' est à dire participation responsable mooy lii ñu ko fekk buñ ci wàllu fekk. buñ ci def loo fekkut nañ ci am sa xalaat di gis loolu mooy participation foofu am. kon yow su ma la Pierre àndoo. léegi nag waaw léegi nag loolu ci amoon tuuti mu nekkoon tuuti ay équipe am moo tax bi gërëm ñëwee ak deux mille dañoo changé statut ak règlement central bi mu ne désormais la centrale CNPS elle est apolitique à cent pour cent duñ ci wax politique duñ ci def politique duñ ko ci dox alalam du ci dugg duñ ci jàppale politicien loolu moom synthèse xaw ma fan waa a xaw ma moom. looloo fa am kon nag ku fa ne la sa ndomb tax man de maa daan gën a ko di politique. Mhm. xaw ma en vertu de quel loi de quel texte de quel esprit mais jaaduwul pour. kon yow d' accord si loolu parce que man souvent damay invité ay syndicalistes di leen laaj est ce que syndicalisme ànd na ak politique maanaam nga bokk ci parti politique ba noppi wala parfois sax nga bokk ci mouvance présidentielle ba noppi bëgg a kaasal uh, ak ak yelleefu liggéeykat yi est ce que ànd na mais souvent ñoom dañ naan loolu yàgg na ci àdduna syndicalisme ak politique mën na ànd juste que nit ki danga nga war a objectif maanaam booy kaasal liggéeykat yi nga xam ne yaa ngay kaasal liggéeykat yi boo nekkee ci sa wàllum politique métti nga xam ne yaa ngi nekk sa wàllum politique kon yow tey ji àndoo ak ñi nga xamante ni ñoo doon développé thèse boobu syndicalisme ak politique mënul ànd musuma ci ànd mhm. lu ma ci ànd bu ma ci doon ànd kon heure bi hmm, ndax lan man sama baay baay bi mu juuf di sama magu baay mu juddoo ko ñu tudd ma ko ñu sunu Pierre Gade mhm. mu jëkk nekk maire fii ci Mbour moo ibukat def coalition de parti mhm. kii bokk si biir parti kii bokk si parti ñu ànd dem conquête pouvoir ñu gagné kii nekk premier maire bii ko yàlla ko yàlla xaaral àjjana. kii nekk deuxième maire kii kii di DG bi Pierre Mba Pierre Gomis yàlla donc ci loolu laa juddoo kon xam naa lan mooy politique. Mhm. mais xam naa lan mooy pas être juge et parti. Mhm. wax la rek argument bu bu tëggul fenn argument bu fondé la pas teguwul daal teguwul mais souvent syndicalistes yi ñi ñi yi ñuy jël di leen tabb comme ay conseillers comme ñu nekk conseil économique social ay environnement ah, ah, bari na ay conseillers yu nekk foofu ay syndicalistes loolu noonu mhm. léegi da ngaa dëggal nag li nga li ma nekkoon syndicat mhm. syndicat gardien la mhm. dafa doon diggante population ak état institution yi état tënk état warutee defal état yi lu jub dëgg lu leer lu amal njëriñ askan syndicat bii askan bi jël ne ko doon sunu sàmm dafay toog pour en tant doon sàmm mais dafa toog en tant que mandat boobu warut a jaar ci politique mu war a jaar ci liggéeykat yi moom nag mu doon fal délégué di fa xool comme ni quartier bu jël ab conseil municipal ne ko demoon sa mairie ba bokkuñu ay yoon moo tax lii doon euh, institut social day doon économique juridique ak yeneen. Mhm. leer na. leer na. yooyu ay ay ay ay ay lay la rek. ay lay la rek léegi àndoo ci. dégg nga xanaa dégg nga dama ne fekkoon tamit bi jaar na CNTS doog congrès <laughs> ci nekk politique ci biir central bi. voilà tey jii tey jii waaw sànq nee nga syndicat bi ak euh, central syndicale peut-être bu dee central syndicale gi mooy kër bi peut-être syndicat bi ab néeg la mais tey jii dama lay laaj parce que yéen a ngi bokk ci CNTS bu moo di Guiro bu dee juumuma. Euh, waaw bi waaw li yow naka nga gisee liggéey bi nga xamante ni kon moo Mody giro mu ngi koy def ci CNTS est-ce que am nga ci satisfaction. Eh, waaw wala déet waaw. yàlla dafa dogal ba am ñoo xam ñu ngi ko xam bi mu ñëwee ñu ko xablaat. Mhm. yàlla dogal ma bokk ci liggéeykat bokk ci responsable yi ko fal région Thiès. mu nekkoon suñu secrétaire général section régionale bu Thiès. donc fa la wane sosam. xalaat tàngooram ak fitam. Mhm. fa la wane xam-xamam. Mhm. benn jël Diop yàlla na ko yàlla xaar àjjana a baay boobu nga xam ne commune ni moom syndicat du tout am si fii nii. tàngooram ak fitam ak dëggoom ak am si mouvement syndical. c'est fini kooku jàngat ko jàngat ko parce que boobu bi muy bi muy jël euh, ma juro euh, daf ko muy candidat mhm. boobu bu dee jege rek Ibrahima Sall ko gënoon a jege waaye industrie alimentaire foofu boobu ñëpp man mii di wax yow bi ma dugg syndicat Madiaye Diop Ibrahima Sall la ma doon mu ñëw def ak ma waxtaan fii ci Mbour ça c'est vers les années quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze man dinaa lu ma xam na waaw mais ñoo xam ne dañuy yegg syndicat bi ba ma koy def boobu ñu est ce que boobu ils sont mûrs wala ñu ngi doon dugub lañ donc je pense que man mooy wax moom li ma wax ni scientifique wala maa ngi maa ngi défier ku ko mën a dindi te moo xam ne interviewé que ni pour gën a mën a xam kan mooy Guèye wala kan mooy Dioula Wade wala kan mooy Lamine Fall wala kan mooy Poté Mabane man Modou Mbodj kan mooy Modou Diouf ak ñoo ak yàlla dafa doon seen kër daa am ay démembrement ci département ñu naan dañu tuddee ay union départementale bu Mbour mooy secteur mhm. bu ñu naan union régionale ci bu Thiès may président général bi jox la sa mandat ñaari yoon. parce ko fa dal te loolu lépp département fal mu jëkk ma jiite section transport en quatre-vingt-quinze am na section régionale bu Thiès ma jiite transport bu ci région Thiès quatre-vingt-dix-huit mhm. toppoon ci Dame Lo deux mille quatre ba léegi maa premier adjoint bi topp ci Alassane Ndoye wala bëggee mhm. donc je pense que cursus rek ci wàllu syndicat ak itam wàllu am taxawaay bu dëgër ci biir CNTS mhm. damay jàpp ne néew na ko am na ko amee néew na néew am na nag mais bëriwul voilà ñu ngi leen euh, fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii ñu dalal euh, Pierre euh, Mbakhane Gomis nekk premier secretaire général bu syndicat des transports routiers affilié à la CNTS bu Moudigiro bala ñuy ñëw ci jafe yi nga xam ne sax actuellement dem beeg dëkk bi mi ngi koy jànkonteel ndax coronavirus dañuy ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ni dem beeg dikk bi ma ngi ko doon daf ko mës di jànkonteel avant corona bi di ñëw Pierre Mbakhane Gomis dem beeg dikk bi lan mooy seen problème avant corona bala ñuy ñëw ci jafe-jafe yi nga xamante ni fi ñu toll nii euh, corona yokkal na leen ko wala sax mi ngi leen di euh, doggali lan moo doonaan seeni i jafe-jafe yi nga xamante ni quotidiennement euh, da ngeen koy jànkoonteel ci liggéey bi nga xamante ni yéen a ngi koy liggéey. Kumba xaw ma ban école nga génne. Mm-hmm. xaw ma ban diplôme nga am. dëgg la. waaye bu fekkee du bëri am nga xam-xam. Mhm. loolu xam naa ko moom xam nga xam-xam ak njàng bokkut. dëgg la. yeewu ak bokkut. dëgg la. man mën naa ne jàng am nga yeewu te ba pare am nga xam-xam. njàng mhm. nag. Mhm. xaw ma seen seen diplôme xaw ma seen niveau. waaw njàng nga fii nga dugg nii. am na ut naa si refi mag fuuf jiitu la fuuf. ëpp lay diplôme yi ci li ñuy wax. waaye seen xel mosul màcc ñoom foofu. dëgg la fi nga syndicat bi nga war di may Sénégal yi leen di wax lan mooy syndicat. Mhm. secteur par secteur. Mhm. responsable bi may leen ñuy wax ñu leen teg ñu mën a xam ndax kii il mérite là où il est wala il ne mérite pas. Mhm. tey ñu dam na ko. dëgg la mais balaa ma ñëw dama la bëgg a wax tuuti fa nga duggoon ci bureau. yooyu la preuve bi mu njëkk a wane ci compétence am. mooy ni mu yokk tey adhésion syndicat professionnel ñëw tey ci biir CNTS. Mm. voilà CNTS nekk fi des di nekk la la plus représentative. Mm-hmm. donc bu bu ma la demee première élection élection de représentation central syndical yi bi ab ab Abdoulaye Wade defoon bi ñu créé CNTS FC Cheikh Diop ne fa. Mm-hmm. kon CNTS premier. mais il est seul même premier. Mhm. te jàpp ci moom opéré na au plus de dix mille voix. bii Macky Sall organisé waat pour war na kii kii Guiro kii la Fede kii la bureau confédéral ki topp ci moom opéré na ko presque vingt mille voix. Mhm. double li mu ko opéré woon. ci topp si ci jamono yi ah, Ablaye Wade kon ñu ngi yokku y a plus de cent syndicats professionnels tey. dëgg la ñu ngi CNTS. demal foofu ci wetu jumaay makaari kii ji naan di nga gis immeuble ba mu jëlee ànd ko bureau concentral ànd ko responsable yi ànd o travail de CNTS ko mu nekk loo xam ne benn mu toll foofu makaari kii ji naan ne ko ma mën. Mm-hmm. pour war la bokk lan moo kan mooy CNTS ak lan mooy CNTS léegi nag. lii transport doon dund avant Covid business bi. Mhm. ñoo jàkkuñ. Mhm. ñun ñaata la fi santas gaaw ci Ablaye Gueye. bari na. Mhm. te sama Touré. te Dame Lo. ci Assane Ndoye. ñu ma topp ci moom. alors donc je pense que rajo yëpp télévision yëpp ñu ngi fi doon seede ci loolu. lëkkaloo yi ni mooy jafe-jafe transport chauffeur. oto transporteur moom oto bi ñu wax ci problème montage répété mhm. la présence massive visible de la gendarmerie au quotidien. Mm -hmm. tous les jours de la police partout sur le plan national euh, sur le plan euh, national on dem on se pose la question des qu'est-ce qui se passe ndax transport rek a ndax télé doog a fi nekk. Mhm. ndax chauffeur doog a fi nekk. ndax oto doog a fi nekk. ndax ñoom la police xool bët ñoom la gendarmerie xool bët. Mhm. xoolal ni ñu yokk tey commissariat yi poste police yi. ne sécurité d'accord na pour la sécurité publique la population sénégalaise. mais tey dañoo jàpp ne euh, loolu lépp dañu koy kuñ ci far rek kuñ ci far rek yaa ngi jëm ci télé ba. ana marsaba ana mbedd ya. Mhm. ana baar ana jumaa ya ana jàkk te ne li ma lieu public yëpp la état war a jël responsabilité garanti ko sur le plan sécuritaire mhm. kon du teel bi doon teel bi amul problème teel bi ay wuyu jaaruñ ci ay oto fii jaaruñ nekk en rek ñun dëlër de de toutes les pièces attanantes à la conduite mhm. ay chauffeur yu ne examiné ñu def examiné jox la ay diplôme bi tudd permis de conduire ñoo yor oto yi ñu am assurance bu garantir oto bi garantir li mu yëpp ak ñi mu yëpp kon kooku ay jëf lenn boo fay def dara pour réguler rek pour réguler la circulation pour rendre la circulation libre fluide mais ce peut-être n'est pas le cas. Mm-hmm. ah les chauffeurs ñu ngi encaissé à chagrin de heure par heure minute par minute kii bi Dakar pour ñu àgg pour la il faut que ñu dee foo dem téye la foo dem taxaw la. Mm-hmm. on t'arrête ici yaa ngi seen par exemple bi lay nga jógee si naaf rek fekkum si FAPA yi naaf am seen une solution bu bëri mais comme ñaata lañ ci créé ñaata lañ ko introduire ci suñu plateforme revendicative ñaata. bari na. concurrence déloyale bii nga xamante ne moo sonal tey gouvernement bi ci Covid-19 bii xeetu mbas mi muy laa ko muy allo Touba allo Awa lu dul loo xam ne c'est pas réglementaire c'est pas normal. parce que dañ pour nga effectuer pour transport public de personnes ou de marchandises état mooy agréé borom oto bi en tant que opérateur yaa ngi procédure mais si booy si balaa muy dawal oto am na procédure oto booy si balaa muy mën a nit di ko laaj paas wala am na procédure yooyu yëpp c'est des choses man de bu nga tey sa émission bi mosut am guddi na am. dëgg la c'est la première. Mhm. te maa ngi ci lii projet a fait plus de vingt ans. dëgg la c'est la première fois mu gis mu interroger de cette façon surtout en matière de transport en matière de syndicat. dëgg la bu bëggee yaatu nag nit ñi ci ne. Mhm. ci biir transport dafa am ñetti ñetti mbir. daa am lu ñu naan fédération des transporteurs. ñebe bi maa bëgg émission bi ku ko déglu. dëgg la. am une très bonne information ba waaw waa fu mu nekk. fu mu nekk waaw kan mooy Pierre Mbakhane Gomis. waaw kay te nit dégg loo xam ne dund na ba léegi mosu koo dégg. dëgg la. muy chauffeur muy population muy commentaire muy journaliste comme yow. Mhm. dañu ne lii fédération des transports kooku opérateur yi benn kuréel la bu boole. képp ko am agrément mu nekk sa bokk. Mhm. muy benn. am li naan regroupement des chauffeurs à l'intérieur des gares routières loolu ñu ngi koy gërëmee xalaat secrétaire général Dame Lo mhm. avant deux mille ñoo àndoon di ko xeex di ko xeex ba taxawal regroupement yi parce que boobu transporteurs yi fédération yi ñoo doon gérer gares routières yi partout mhm. te boobu ñetti fédération président fédération yi sàmmal amoon naa laaj atu yàlla na ko yàlla xaare àjjana amoon na lu alaaj labat fa yàlla na ko yàlla xaare àjjana amoon naa alaaj lamb sow yàlla na ko yàlla xaare àjjana ba léegi am na say représentant kenn ku ne ci ñooñu rajo laay waxee de. Mhm. yaa wax ji. la. boo jëlee Ousmane Doy ca Kaolack ko mu nekkal boo jëlee góor gi ko mu nekkal boo jëlee Ibrahima Diop am na ko mu nekkal. Mhm. <laughs> donc ñu ñu la léegi borom xel ñiy dégg nag toog xam loolu. Pierre léegi nag syndicat bi moo ëmb ñooñu ñëpp xam nga ko war. transporteur war a ñaanal yàlla jàmm syndicaliste. bu mhm. transport. Mhm. état war a ñaanal jàmm syndicaliste bu transport un vrai syndicat je dis bien. dëgg la un vrai syndicaliste. Mhm. qui sait ce que c'est un syndicat ce que c'est un syndicaliste. parce dee syndicaliste doo opposé état ci wàllu politique doo ànd ak état ci war a nekk rek au milieu. bu état vision ak idée ak idée bu baax. dugg na ci loolu bu indi loo xam dafay lor nit ñi te tegu ci fenn lu may bëgg a tege ci doole man ko déet du fi amee waru fi amee tu n'es qu'un surveillant un observateur un régulateur loolu mooy rôle bu vrai syndicaliste ay yéen ñi kiiwut alors mm. kon tey ci ñu organisé garage yi garage boo dem tey mm-hmm. mu am bureau am président président yooyu c'est des délégués comme les délégués dans les entreprises te day béy que dans les entreprises liggéeykat yi ñooy boole xool leen mais président gare routière dans les gares routières chauffeurs yi di travailleurs yi aussi qui tourne autour des gares routières ñoo mhm. donc mu nekk un répondant vis-à-vis di syndicat nekk un délégué vis-à-vis du syndicat et vis a vis des des travailleurs am na xam ne du ay voca du vocation du ay productive am mais nag ci wàllu social ñoom ñooy gérer crèche yi ñooy gérer crèche syndicat war na encadré ba xaalis boobu itam ndax nit mm-hmm. ñi ak li ko tax a mooy dimbali chauffeur yi ci accident yi dimbali chauffeur yi ci feebar yi dimbali chauffeur ci xat-xat dimbali chauffeur ci jafe-jafe yi. Mm-hmm. loolu tax chauffeur yi di indi di boole seen xaalis lu waateewu ko fenn consensus la réglementaire la doon luy wax ñu teg ko bokkul ak loi de ñëw ci biir constitution ñëw ci suñu biir loi moo tax fu ci jàmm am mu continuer fu ci jàmm jeex autorité administrative am na droit wu. faire cesser activité. parce que je me rappelle vers les quatre dix huit quatre dix neuf. Mhm. ci histoire wu gaalu Cheikh bi Thiès. boobu am laa jaxle ak le cadre euh, waa Dakar waa Esopor waa Kër Moussa euh, euh, gouverneur boo xam ne kon foofu Idrissa Kabé la ko yàlla arrangé. Mhm. daf ñu woo ñu wax mu ne alors bi affiliation ci biir seen test yu amul seen si statut ak règlement no gin seema ko ba xool ko effectivement c'est ne man kon nag je suis sur le regroupement ci lay jógee ñu ñu modifié nag statut ak règlement de regroupement des chefs de la région de Thiès daf ko première ligne affiliée à la CNTS donc loolu dafa boo jaadu ma waxaale ci nag liggéeykat boo xam ne yaa ngi liggéey mhm. syndicat moo lay saytu keneen du la saytu mhm. kon nag ne da ngay dëggal bu la neex nag mu ngi mel ni nit ki jóg ne man murit laa tijaan laa mhm. ba dee tijaan aussi waa Tiwaawan wala waa Ceneba laa wala waa mhm. parce que man mii di wax ak yow j'étais catholique mhm. je me suis reconverti en musulman mais tijaan la mais waa Ceneba laa dëgg la exemple boobu àngoon donc loolu sa liggéeykat bu nekk na fexe ba dëggal jëmmal ci ay kayit ci ay statut réglementaire ban central la bootu Mm-hmm. c'est-à-dire moo ko moo ko yor moo koy fam mm-hmm. waaw léegi nag Sénégal yàlla dafa dogal la majorité des regroupements des chemins dans le Sénégal sont à la CNTS ka ko def ci réglementaire la ak ci def la nag parce que tam muy dafay desu am ci compétence bi te bu fekkee da nga ne yow ci responsable d'une gare routière ou bien d'une entreprise war nga fexe de façon préofficielle ñu am ni ñu manifester loolu voilà léegi Pierre dama lay laaj ba xam secteur transport maanaam liggéey bi ngeen di liggéey fi ngeen nekk. am na xaalis wala amul xaalis. waaw xam nga waaye non yow non Kumba daal yow Kumba Kumba bokkoo ci. xam nga yu bëri yaa koy dégg. <laughs> waaw yow di arrangé yow mii mm. Mm. ku am information dëgg nga am solo ñëw ci man. léegi mm. nga syndicat wa ñaari voies la am ci am xaalis. ñu mm-hmm. réglementaire laa wax de. ñu licite. ñu licite. waaw benn bi rek mooy cakof. maanaam lan. bépp li bépp li ñu naan cakof. waaw naa la ko leer naa la ko leer. Mhm. kooku la. waaw seen seen terme la yéen a ko moom. <laughs> waaw waaw léegi mooy naan liggéeykat bu nekk. Mhm. at mu nekk da ngaa war a dem souscrire dagg carte syndicale at mu ne obligatoirement nag la loolu nag syndicat bi ba am. syndicat bi ci wax moo ci am moom moom les euh, soixante pour cent. Mm-hmm. central moom les quarante pour cent donc central bi loolu lay doxee. Mm-hmm. syndicat soixante pour cent yooyu lay doxee. Mm-hmm. muy benn bu loolee jàllee euh, liggéeykat bu doon liggéey bu difficulté ci biir liggéeyam ñu renvoyé ko. de façon euh, abusive wala de façon réglementaire. Mm-hmm. syndicat bi woo war a jël dossier bi dem inspection du travail ci mu jëkk ci mu jëkk. Mm-hmm. te ci mu jëkk bay dëkk dem ci borom ki mu seqaloon liggéey bi. Mm-hmm. déglu ko laaj ko. fexe mu aji toogaat liggéeyaat liggéey ñu continuer. parce que bu ñu naan syndicat la parce que liggéeykat moo tax. bu liggéeykat am fu syndicat amatul. liggéey jeexoon tàkk mais tey premier liggéeykat bi di Sénégal mooy le président la mooy le premier travailleur du Sénégal te moom la Sénégal daje fal ko ne ko liggéeyal ñu réew mi donc le président et tous les présidents sont embauchés pour travailler pour les populations c'est les premiers travailleurs de chaque pays li foofu naa ne kon liggéey moom mënta ñàkk kon kon syndicat mënta ñàkk mhm. bés bu seen liggéey amatul syndicat amatul tribunal du travail dootul am. Mhm. inspection du travail dootul am. ministère du travail dootul am mais tant que gouvernement boo dee fekk ministère du travail am na syndicat am na saa boo demee ci réew yi ne ci institut constitution bi tribunal du travail am na de parce que kon syndicat syndicat bi am na buy ne itam euh, inspection de inspection de travail am na c'est parce que syndicaliste am na te syndicaliste mooy rôle mooy jouer rôle alkaati saarama diggante ak association tra ak tribunal de travail xam nga bu dee bi côté pénal la police ak gendarmerie mooy liggéey ak procureur mais nag bu fekkee côté social la syndicat mooy liggéey ak inspection du travail ak tribunal de travail moo tax li nga laaj nii dafa doon loo xamante ni mhm. solo bi mu am mooy mhm. bu dee de ko respecté télévision yëpp ñu teg ko harmonie mhm. ñëpp am information dëgg la tey xel bi nga am ak intelligence bi nga am ba dugg ci sujet bi ma di ko leer la nii dëgg dëgg ñu néew journaliste yu ko am idée bi ñooy néew rajo am na man daal li ma bëgg mooy ne réew mi am télé am télévision. incha allah ñaanal léegi mu ñëw. mais Pierre dina waaw dinaa la laaj si souvent. bu ko defee. Mhm. bu ko defee. Mhm. Euh, ñaar yooyu mooy yoo xam ne ci lay amee alal. ndax foofu itam bu fekkee budget bi am na. ba ñu dédommagé. Paabayer bi. Mhm. lañ koy fee lu mu bëri rek lu mu néew néew vingt pour cent syndicat bi ko moom. Mhm. xam nga fa la syndicat bi mu ngi amee ci soixante pour cent li ba. cinquante mhm. ca koom ba. fii mu ngi am vingt pour cent ci li nga xam moom la ñu dédommagé travailleur bi bu fekkee dafa am conflit diggante nag entreprise wala patron. ba ñu jot ko jox koy droit foofu leer na. leer na li ñu nag mooy. pour lu nit ki nag mën nga mën nga nag mën na kontaan ci responsable am. Mhm. ci fulaam ngoram xam-xamam jotam ak taxaw bu mu ko taxaw. mais mhm. bu ko neexee mën na tabax kër may ko mën na jënd kër may ko man na ko ne man de li ma am saa bu may weer dee mën a rek samay nangam. Mhm. sur le plan individuel comme sur collectif. ko ko mën na imposer jëndal carte. boo jëndul carte bi ma woo parce que oto nag bu amul assurance yoonu assurance ñëwul sa moom kon liggéeykat boo amul carte syndical booy wax syndicat dara dañ koy tooñ dara liggéeyu leen te loolu moo xew fi mu ne ku jóg nan amuñu ku ñu taxaw amuñu kilifa. Hmm. syndicat yi nangam. Hmm. te am ci kenn ku nekk fi carte de duñ carte syndicale. te liggéeykat yëpp dañoo war kenn ku ne at mu nekk nga dem jënd carte boo gisee jàngalekat yi am doole. boo gisee euh, waa sant am doole ñoom koy dagg à la source comptable bi leen di fay mooy génne sen cekof ci seen salaire par weer ba un an ñu werse ko ci compte central bi weer wi ñu sor weer wi ñu tur ko ci compte central bi ba un an te cekof boobu mooy doole sa syndicat gisa man di tax tey ma jiite département jiite ñu ci région ñu ci bon national carte la waa département ñu jënd xeet bu ñu gën leen sant chauffeur yi nekk biir département Mbour dama président ñu moo tax tey ma nekk premier adjoint ak sëñ Assane Gueye dama ko am ci taxawaay yu am ko ci taxawaayu mandat am ko taxawaayu délégué moo tax tey ma nekk premier adjoint ak Assane Gueye du gërëm moom nekk ci te ñoom ñoom ci seen syndicat nekkoon coordonnateur de la centrale alsaan ñëw ma kaa man yoon mooy ko loolu donc travailleurs yi dama seen représentation ci ànd ak man loolu moo may ma nekk premier du du du syndicat des transports routiers affilié à la CNTS. voilà. Euh, Pierre temps bi bareetul te foog ñu dugg ci affaire corona bi mais bala may ñëw ci corona bi parce que dama doon dégg ñu naan souvent chauffeur si euh, surtout ñuy dawal oto yi ainsi de suite bu ñu demee ba retraité souvent dañuy dem ci garage yi di yalwaan maanaam amuñ retraite bu baax amuñ lu leen accompagner est-ce que loolu da nga koy dëggal waaw wala déet comme ça ñu mën a dugg ci affaire corona bi. waaw dama koy dëggal. dama hmm. koy dëggal ndax ñun maanaam ñu ànd ak moom ku mel ni man ak ñeneen. Mhm. ñoo àndoon ba euh, jël euh, organiser séwal ci gaaru ceeb boobu idée boobu la ñu amoon. Mhm. parce que gaaru ceeb moom cook ceeb yi ñu naan régulateur ak ci dawal ba retraité war na am euh, de retraite te amu transporté de la ñëw kattan ak manque d'organisation moo tax na kooka bu demee gaaru ceeb lay dem ñu ko fa jox ay redevance redevance yooyu nag bu koy boole bu dee dafay mot salaire. boo xam ne mooy nekk pension de retraite am ensuite apprenti boo xam dafa dafa dem ba am am handicap mën nga xam nga am na fi apprenti nang ci oto mm-hmm. nekk handicap ñàkk seen loxo wala ñàkk seen nangam wala ñàkk nangam nangam wala nangam wala dem ba doon màggat am chance am permis day am mm-hmm. mais ils sont âgés ñooñu ñooy ñuy dem gaaru ceer sàkk fekkee ba ñu am jom mm-hmm. dañu am handicap waaw ma ko oto ak ak ñax dañoo âgé ñooñu ñooy régulateurs yi yoo xam ne régulière ñooy régulateurs yi yi régulier nekk daal situation normale par des cher leen ndax mandat yooyu yoy jox muy mhm. loolu ñuy la ñuy séddoo par bés égal mhm. mhm. lépp nag xëy na ak euh, di xew mbooloo mi avance état yi avance adduna mën nañoo avec syndicat fort seen assez euh, organisé. Mhm. mën a dem ba xëy na yooyu war koo mën sax de fàttali si benn anam boo xamante ni bii. Euh. parce que régulateur yi toog kalam. su ñu xam ne ñu ko enveloppe ne ko sa sol ngi nii loolu yëpp ay méthode la ak ay idéologie peut-être dans le temps dañoo parce que man mii si candidat xool parce que premier secrétaire du syndicat du transport ci à Saint-Louis. ma carte depuis février deux mille dix. nag xam nga je vais ma mais sûrement parce que nag du affaire xuloo du affaire xeer du affaire présente affaire démocratie la surtout dañ koy def ci xel ak xalaat rek ba yàlla def. ndax yàlla ñu indi ñu ba nga foofu commencé ci président garage Sadiaye en quatre vingt neuf quatre vingt dix mujj tey yàlla loolu bu ko waree yokk ca da koy yokk bu ko war a yemal si la yem bu ko war a jeexal da koy jeex en tout ma mën a assuré mooy ak fu mënti yem ngor gi fit bi euh, xam-xam bi jot gi mu ngi fiy des ba soobee loolu moom yàlla mu koy dégg parce que nag yàlla mooy kii mais ab am solo am solo mooy transport métti na transport sonn tax te ñetti weer transport ni mu souffrance am kenn amu ko ci. waaw dinañ ci ñëw léegi mais bala ñuy ñëw ci ah. ci corona bi euh, guerre bi tamit sonal na leen maanaam corruption bi ci kaw tali bi yéen ak takk der yi yéen ak gendarme yi ainsi de suite loolu lan nga ñu ci mën a wax gendarme yi policier yi bi gërëm dama ciy gërëm ñaari euh, gën a kawe à part les miliciens gën a kawe ci police ñoo gën a kawe ci euh, gendarmerie muy le directeur général de la police ak le général de la gendarmerie Moussa Fall tey jox li ñu ngi jox seen lépp ñu def seen xam-xam seen jot ful seen fayda seen tañ-tañ pour que loolu jeex mais nag dommage général Moussa Faye Moussa Fall benn kilifa la ko toog ci bureau général de la police monsieur Sy Eh, benn kilifa la bu toog seen bureau donc mënut a taxaw ci télé bi di xool li xew mais am na ñu ko nekkal ci télé bi muy alkaati Sarome yi am na ñu ko nekkal digganteem ak alkaati yooyu muy commissaire yeeg commandant corps urbain yeeg capitaine yeeg colonel yeeg commandant de compagnie yeeg commandant de brigade de façon yooyu yëpp nag kenn ku ne bu jëlee ne moom Sénégalais la te li muy def. ci eh, la Sénégal war a mën a jaar tuqaliku dina gën a def prise de conscience chauffeur bi aussi président fédération président regroupement gaal syndicat bi aussi kenn ku ne ak boobu oto bi ci wax opérateur du kenn ku defee ci moom ne Sénégalais la fàll ku mu féete ci eh, Sénégal war a suqalikoo moom it def prise de conscience mais kenn ku ne xam ne la muy def ak fa ne loolu buñ ko boole mooy Sénégal mais buñ ko boole ci réew yëpp Sénégal yeneen réew loolu mooy àddina luñ teg ci njub teg ci dëkk loolu mooy li koy jëma réew kanam mais en tout cas li wétti wër mooy mhm. en corruption lu sonn la yemul ci transport bi yemul ci télé bi yemul ci alkaati bi yemul ci sànduma bi dafa yaatu mais comme nag ñun ay chauffeur lañu mhm. yàlla dogal tamit acteur transport la ñu bokk ba pare yàlla def ñu bokk ci jiite secteur transport ci wàllu syndicat ci wàllu yoon ci biir réew mi. Hmm. mën nañoo gën a wax waaye daal dama ne maa ngi ciy gërëm taxawaayu général Moussa Fall. gendarmerie hmm. ci gërëm na taxawaayu directeur général police ak ñi nga xam ñoo nekk ci yoon ak ñoom ñu jàppale te liggéey boo rien que rek euh, la collaboration l'esprit à la collaboration. ñoo xam nañu ko ndax dëgg dëgg na yàlla seen yaa ngi sama numéro tegu ci marché numéro parce que lii wala laa dama def ci kaw loo xam ne njëriñu Sénégal la. il loo compris te ñun bu ñuy may tontu ci loolu la ñuy tontu. voilà voilà Pierre quelques minutes moo ñu dese euh, nga nekk euh, may rappelé auditeurs yi Pierre Mbakhane Gomis mooy premier secretaire général bu syndicat des transports routiers affilié la CNTS bi nga xamante ni moo di Giro moo ko jiite di centrale syndicale euh, jafe-jafe yi nga xamante ni dem beeg dikk bi mi ngi ko doon jànkoonteel bari na buñ ko doon wax tey bu suba duñ fi jóge mais depuis trois mois wax nga ko sànq am na benn mbir bu dugg fii ci. Sénégal di coronavirus wala Covid 19 euh, bi mbir mu duggee nag am na ay mesures yoo xamante ni état wu Sénégal daf ko jël ngir dakkal feebar bi wala xeex feebar bi wala jàmbaarloo ak feebar bi mbir mi nag laal na secteur yu baree bari pratiquement amul euh, kenn ku nekk ci réew mi te euh, mesures yi nga xamante ni jël nañ ko sentiroo ko directement wala indirectement surtout ci côté koom-koom ci côté économie secteur transport laal na leen trop parce que gis nga ni sax nombre de places yi moom la ñu daal di njëkk a limité euh, début bi sax dañ ne woon euh, oto yi dañuy xaaj la ñuy jël ainsi de suite ñu dem ba fan yi sax ñu ne euh, mën nañu jël nombre de places assises yi mais beneen mesure boo xamante ni c'est vraiment radical et puis mu ngi sonal transporteurs yi di dakkal bi ñu dakkal transport interurbain comme transport yi doon jógee Dakar dem Ziguinchor dem Thiès dem Kaolack dem ci région yi entre région dañ ko dakkal même léegi sax entre département dañ ko dakkal lool bi mu amee nag yaakaar naa ni yéen la gën a laal yéen ñi nga xamante ni yéen ci dem beeg dikk bi euh, nekk loo xamante ni mi ngi naxas na nasaxal koom-koom bi euh, déjà euh, dañ lay laaj parce que waxtu bi bareetul naka ngeen dundee mesures yooyu nga xamante ni état wu Sénégal moo ko jël pour xeex coronavirus wante jàpp naa ni fiñ toll ni li ngeen di dund sax coronavirus tegu leen ko waaye jafe-jafe jafe nga xamante ni yéen koy am euh, ci wàllum koom-koom moo leen ko dal di teg. voilà euh, nasaxal ko koom boobu lay jëkk tontu. Mhm. ndax ni ko waxee romb na sax ñu ko foog. Mhm. maanaam station essence na Sénégal boo ci demoon tey muy la ñëw na à la baisse que transport de personnes dañoo bari te li ñu jël en ravitaillement carburant dafa bari. loolu dem na jaaykat yi ni ci yoon yi ak looy mënti jaay nag yaa xam yàpp la furwi la saaf la loo mënti jaay ñooñu ci oto yooyu doon romb jóge Dakar jëm frontière bu mënti doon jëm ci région bu mënti doon ca lañ daan dund loola wàcc na boo xoolee dëkk yi commune bu nekk garage na fa ci oto di romb daan fa waddal taxi municipal loola wàcc na. kii hmm. économie bi nga wax laa lay indil de. dëgg la. Euh, bu ñu nee léegi nag ci opérateur yi nga xam ne ñoo jël ay investir ay million boo calculer tey li nekk ay oto yoo xam ne dem ak dikk lañ daan defa région région. Hmm. ñaata milliards la doo ko mën évaluer. Hmm. ndax fekkoon benn oto bu nekk rek million dong lay jar. muy bi gën a bizarre ñaata milliards te ngay am di ko gis ci oto yi ndax ñaata junni oto ñoo gaare mm-hmm. booba nag bus bi jar ay vingtaine de million minicar yi jar ay dizaine de millions mm-hmm. jaay et cetera mm-hmm. donc loolu lépp déjà kon ñëw na ci économie bu wàcc mais bi ci def ci wàllu social ñi nga xamante ne bi ñu ngi doon dund ci oto bi Mm-hmm. au quotidien hein, au moo xam wajuru borom oto bi wala chauffeur bi la wala coxeur bi wala apprenti bi wala njabootam wala moom ci boppam ñoo ñëpp dundatuñu ci oto boobu mm-hmm. ñi daan dund ci gaaru ceer yi di ay jigéen di ay góor di ay mag tey dundatuñu ci loolu ndax gaaru ceer boo dem nekk na un alors yooyu yëpp ay paramètres yoo xam boo ciy xool économiquement li nga wax am na. Mhm. mais socialement c'est plus mhm. ñu ngi nii ci biir koor ku xam ne na koor ak li ci aajoog li ci gàddu. Mhm. dégg naa barki démb ay chauffeur yi dem bay tàllal loxo ci tëli. lan mooy def na kon léegi xanaa lan seen basan ci kaw tribunal kaa leen ak ñu jekk ñu. loolu nag man euh, kenn rek laa ciy waxal muy président de la Macky que président la fal président moo def décret décret bi président def moo indi arrêté ministre moo indi arrêté gouverneur moo indi arrêté préfet moo indi arrêté sous préfet. Mhm. man kon président boobu la ñuy waxal te moom la yokk ay sañ-sañam pour que lépp lu war génne mu sañ koo génne ci bu gaaw te lu jaar sax te mu daan jaar démb ak barki démb. ndax feebar bi di mbas bi ñu ñaan yàlla ko fi yàlla jële mu gaaw te bañ te ko jële te ñi ci faatu yàlla xaar leen àjjana ñi ci feebar yàlla wéral leen yàlla musal ñëpp ci kenn ba jaral feebar yeneen yi yàlla yàlla musal ci ñëpp ci feebar yàlla wéral waaye ma bëgg waxaat ne def nañu ay kuréel ay commission yuy joxe ab muy denrée de première nécessité ceeb beeg diw geeg si aide boobu laa bëggoon ñëw est-ce que yéen euh, sentir ngeen ko sentir woo leen surtout euh, enveloppe wax ne dañ ko jox secteur transport maa ngi ñëw nag xam nga comme nag mo wax pour yi nit ñi war nañu am la bonne information ndax yaakaar di bi nag damay mm-hmm. damay a jokkoo ak kilifa yi nga xam ne ñoom laa war a jokkool mm-hmm. te wax la wax loolu wér man moom lu may wax lu ne nga gis ne wér la ba mu koy jëlee la. Mhm. te bu ko fay jëlee nag ñi ma jox mandat muy chevaux de traite te jiital ma moo tax ñu di ma di ko laaj moo tax ñu ma ko jox te moo tax nga laaj di invité ma nii. Mhm, dëgg la kon war nañu am lu leer. génne transport. Mhm. mu boole ci Dakar Dem Dikk. AFTU ak transport urbain bi ak transport interurbain bi. Mhm. muy tout ce qui est transport public de personnes. Mhm. exclu transport de marchandise. alors répartition bi ñu ne tey nañu un milliard trois cent cinquante millions jox ko gare routière yi ak transport interurbain bi c'est-à-dire cent millions trois fois cinquante millions. 3 fois 400 millions, ça fait 1 million, 1 milliard 200 millions. 3 fois 50 millions, ça fait 150 millions. moo tax ma ne 1 milliard 350 millions d'avril, mai, juin. 3 mois loolu la ñu ko defee. alors ñu jox ay fiches yónnee ko au niveau des directions des transporteurs des 14 régions du Sénégal en collaboration ak les différents des départements des des gares routières départementales alors à ñooñu nag ci lañ leen jox ay fiche ñu dem inscrire ci fiche yooyu fiche yooyu ñi ca bindu ndimbal li ministre Mansour Faye yor ak commission bi nga xam moom la général Ndiaye jiite ñoo leen di jox ab dund donc du xaalis hmm. information yi ma jox ci kilifa gi ma ko war a jox jox ma ko bi ñaar la ñu koy jox ñu ne gaaru ceeb gaaru ceeb yëpp yi ngi ci département chef lieu de département ak chef de région day leen verser seen compte liñ leen di jàppale loolu regroupement bi moo ko moom pour budget de fonctionnement bi gaaru ceeb bi doon am doon koy dégénérer ci membre am muy ban am beneen bu des ñu ne nag foofu chef de région moo ëpp doole chef de département ci xaalis ba mais gaaru ci ni ci frontière itam tel que Rosso Sénégal Kidira ayib Karang ñooñu itam ñoo ëpp doole ci xaalis bi yeneen gaaru ci moom chef de département donc ñetti ñetti taxawaay la am na taxawaay frontière am na taxawaay chef lieu de région am na taxawaay chef lieu de département léegi nag opérateur yi wax dañ ne dañuy créer ay commission yoo xamante ne bii dañ koy def mu nekk de commission transparentes et démocratiques borom oto bi xam ne moom moo otoom il faut mu ñëw indi lu certifié ne oto moo ko moom mooy mu de toutes les pièces afférentes à la conduite de ce muy carte grise bi agrément bi tos bi leer na léegi oto bi nekk en cours de stratégie en décembre deux mille dix neuf deux mille dix neuf décembre deux mille dix neuf am agrément valable licence ak service valable boobaa rek may ñu xool bi ñu koy jox wala commission ba moo koy saytu ci kaw budget bi ñu leen ñetti anam yi mooy li ñuy xaar boobu ba léegi te accès mu war a accès nag muy xaalis bi muy ceeb bi mhm. muy diw gi mhm. muy suukar ci mhm. muy leneen jot na ndax nag dëgg dëgg na yàlla bëgg mu gaaw moo indiwoon loi boobu ñu watoon assemblée d'habilitation kon dafa war a gaaw. Mhm. mais dara séegul na na leer. mu leer mu leer naa ñu daal mhm. amul benn gaanu cher. benn pepp cher demagul. depuis trois mois ba léegi bu mhm. benn dërëm duggagum. dañoo bëgg mu ñëw président rab li nekk laay waxal man. te bi la ñu suñu réew. mooy kilifa réew mi moo def décret tax ñuy teel a tëdd moo def décret ba kenn dematul région région. mais dañuy mottali rek ba ñuy jotandi. kon président boobu laay wax ci tout trans tout tout Sénégalais yi ci tout acteur transport Sénégal en matière de Sénégalais en matière de chauffeur en de syndicaliste des transports routiers bloc central bu ñu naan CNTS jiite ko d'abord ci département jiite ko ci région muy département Mbour région Thiès topp ci ko jiite Sénégal donc am ci mandat mandat boobu tax yow journal nga indi nga woo ma mm. invité ma émission mm. di ma posé ay question mooy kon seen tur kon ci seen tur laay waxee président de la ta sa njaboot gi yëngu ci transport public de personne muy urbain muy interurbain sonn nañu lott nañu tàyyi nañu dee nañu président na gaaw na gaaw na gaaw surtout que dem nañu beneen may nañu département bi suuf si biir département mais teewul kenn départ kenn liggéey kenn département mënuñ si liggéey kumba. dëgg la mënoo jógee ko dëkk ba ni Kaolack mënoo egg si Fatick foo jëm mënoo egg Kaffrine foo jëm mënoo egg euh, euh, dëkk ba de Nioro foo jëm mënoo egg euh, Foundiougne foo jëm boo jógee Mbour mënoo egg Thiès. foo mu voilà mi ngi noonu Pierre waxtu bi waxtu bi jeex na waxtu bi jeex na xam naa kontaan nañ loolu ci leeral yi nga xamante ni ànd nga ko am na solo xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatook auditeurs yi ñu doon bàyyi xel ak sa mbokk transporteurs yeeg ñëpp euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo Pierre mbaxan Gomis ah kumba daal ginnaaw ma la ginnaaw ma santaate yàlla suñu borom bi julli ci yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu muy jur suñu dëkkandoo mhm. àq ñëpp nag tey baal àq ñëpp tey yàlla yàlla ñëpp baal ma àq baal ñu àq euh, maa ngi lay maa ngi gërëm euh, Rewmi FM ki ko ki ko moom ki ko yilif ak ñi ciy liggéey bu ci yow moom ak ñëpp ñu koy déglu nag Euh, di gërëm nag ñi nga xamante ne bii ñoo ma jox mandat. su fekkoon secteur Sampol laa kese. sama kàddu di ci kii di ko dégg. kon nag dama gis comme ñoom. di acteur transport comme ñoom. yàlla mi dogal nañ ci tànn ji. bokk ci ma bokk ci ñi yàlla génn def leen jiit. waaye li ma mën a xam daal mooy maa ngi fas yéene. jëf ñu koy remercier bu baax a baax kile di Pierre Mbakhane euh, Gomis moom nekk euh, premier secrétaire euh, général bu syndicat des transports routiers affilié la CNTS bu Modiguiro ñu koy remercier ci leeral yi nga xamante ni tey ji indi na ko ci secteur transport ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy jànkonteel ci jamonoy coronavirus bi di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo nekk ci euh, technique bi euh, émission bi tamit mën ngeen ko suivre ci suñu euh, portail internet www.rewmi.com com wala ci suñu chaîne YouTube du Rewmi officiel kon Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité di ñaanal à toute la communauté musulmane feetu Eid el Fitr bu neex a neex di baalu baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq ñu fekkee ko déwén yu baree bari jaa jëf